kon mbokk ak xarit ci ñuy seetaan ci gfm point sn lëkkaloo ak youtube slash tfm dal leen jam ci xibaar bi nga xam ni moom leen leen jëlalee fi nga xam moo di Rufisque Tëngéej nag ki nga xam ni mooy l'impératrice de la mode africaine la grande royale Diouma Dieng Diakhaté moo doon dalal ñi nga xam ñoo di militant wu APR yi mbooloo mi nga xam ni ñi ngi koy jàppale ànd ak moom jëm ci référendum bi bu ko voté li nga xam moo di oui kon nag sans plus tarder ñu nekkat ci urgence nu def lu dul bàyyi leen ak xew-xew bi nga xam ni moo fi am ak kàddu yi nga xam ni Diomédiène Diakhaté la grande couturière l' ambassadrice itinérante moom tamit li mu yëkkati loolu dañ leen di bàyyi nga daal di koy moom cosaan indi ak Adja ba fu bopp waaye nag juma la fekk say bopp da laa juma say bopp Adja Fatou Dia attaque Adja Fatou Dia te toog nii. J'ai vu votre mobilisation et Dieu seul sait que ça me va droit au cœur. Vous êtes là depuis des heures et des heures sous le soleil. Parce que tout simplement, c'est votre fille, ouais, bon. votre sœur qui a fait que cette mobilisation aujourd'hui vaut ce qu'elle vaut. Le livre que nous votons le 20 ne concerne pas le président Macky Sall seul. C'est un oui de tout un peuple. C'est un oui pour nos enfants. pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Vous savez, le mandat de 5 ans, qui ne dépassera pas, Inch'Allah, deux mandats, ça veut dire qu'on ne peut pas rester à la tête de l'île. Ici au Sénégal, un pays de démocratie. On ne peut pas y rester maintenant. Le mandat sera à 10 Le président de la République, M. Macky Sall, sera demain à Rufis. dañu bëggoon des mémoires politiques ñu defal ko réception boo xam ne kenn mosu ko fi def fii si tëddee. luy démontrant au passage que le huit est déjà beneen message bi mooy. élection yi yuy gaaw la ñaari bulletin la teel leen jóg di élection yi jeex ñu dégg bi dem seen yoon. je vous remercie. parce que bisu tey bii dañu décidé woon organiser une manifestation avec la convergence libérale et patriotique ba déposer une déclaration au niveau de la préfecture mais bi ñu yégee ne dafay organiser ñu nuy sotti rek def gi yëpp ci ndab li la jëm Diouma c'est notre sœur suñu xarit la xam nañu digganteem ak le président de la république donc nañu mobiliser wu ñëw jàpp donc merci à Diouma mais félicitations à Mamaya. Badara, je vous connaissais un grand sportif. xamoon naa ne vous êtes un homme intègre xamoon naa ne vous êtes un disponible mais xamuma woon ni dugg nga àjjana. c'est important parce que dugg àjjana te deewuloo mooy juboo ak say mbokk loo soxla ñu defal la dee soxla ñu taxaw ci lu ñu doon ñu defal ko te te te te may leen may leen ma may leen ma may leen ma. mais nag Serigne Mbacké Ndiaye. ce qu'il a fait man dama doon intervenir pour dem mu ni ma may ma ma dalal la ak dimension bi mu am marque de générosité la et de grandeur te ku gis ardeur bi population bi àndal nga xam ne du ay nit ñoo nga xam ne da ngeen di pousse pour ñu tàccu. car nous pensons que le parti que nous avons, ce parti s'appelle le Sénégal. Battons-nous pour le Sénégal dans la paix, dans démocratie, pour que le Sénégal triomphe, pour un Sénégal émergent. Je vous tey mbuyu bokki lebu yi fi teew yëpp tey jii su ma amoon lu mu gënal am baat bu neexee di baatu ko fi olofité pour wayal loolu. kontaan naa lool lool lool je me sens honoré d'être ton frère et ton monsieur le maire Badara Mamaya Sène di la wax nag ni la kanamu président Macky Sall amul luñ ko may wal bu wootee yaa ngi ci bu wootewul yaa ngi ci buy nelaw yaa ngi ci boo xëyee yaa ngi ci yàlla ci yàgg nekk ci nekkin bi ci nekkee nga xam ne dajale rek ak loolu bu kooku buñ ko suuxatee it mooy indi nañu beneen mbir parce que bu ñu demee ba autorité bi jóge ci ñi xam ne ñoom ñoo war a àtte te bu ñu àttee mu nekk àtte bu leer citoyen yi kenn kéetinewul seen àq ak yelleef noonu mooy consolider état de droit parce que état de droit citoyen moo ci nekk état de droit citoyen boo am information moo ci nekk état de droit mooy état boo xam amul impunité état de droit mooy boo xam ne de plus en plus vers l'égalité des citoyens te ci doxalin président la république li politique am na yoo xam ni beneen